ku wax safar wax sant ku wax cant wax bernde ku wax bernde wax mbégte kii teen yépp di dab seen mbégteeg seen bànneex muy Baye Cheikh moo leen di dalal jàmm ci safaru Baye Cheikh safaru Baye Cheikh di ay série taalif yu leen di xamal lenn ci jaar-jaari sëriñ bi di leen xibaar lenn ci xew-xewi màggal yi di leen bëggal ci ay jëf yu xoromoo xorom ko dale benn fan ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bis bu nekk yéen ak bàyyi seex ci siiwal point net kon yéen ñi bëgg fësal seen place wala seen produit wala seen entreprise bu leen xéewaluk sëriñ bi raw woote leen gaaw ci 78 104 05 95 wala 77 663 03 safaru bàyyi seex taalif yu lay xamal di la xibaar di la bëggal safaru Baye Cheikh jàngal sëriñ bi ci biir njàngat yi dolli ku mbékk ndimal xorom lu ñu ñaw xekkam la cuube ko way jàngal sa bopp ci biir njàngat yi dolli ku mbékk ndimal xorom lu ñu ñaw xekkam la cuube ko way day yàgg day gën a wér ñoo génn ba aljana rek gaawantu leen abonné seen taali mbégte di boy gaawantu leen abonné seen taali mbégte di boy safaru bay seex lamboona xam-xam ak ñatti jubbam fu nekk lay dem ki bay seex la ki bay seex la